bu Abdoulaye Dione fan la toog ci réew département bu mu dëkk mënu ko gagné. non même réglé. bu dugg ci loolu parce que ba ba fay Abdou Mbow indee euh, débat wu affaire authentique. débat wu euh, man de waaw ci loolu. non non ci ci loolu man. nit mën na Ousmane Tanor Dieng njëkkul PS te xeex naa pour mu nekkoon secrétaire parti loolu loolu man góobu yooyu góobu yi yooyu ku faible koy gëm maa fi jiitu. maa fi jiitu ma lay war a njëkk fan loolu amul ci parti politique kon Abdou Diouf jiite PS. mais c'est pas parce qu'il ne s'est pas battu en. waaw non waxuñu loolu. que mérité wu ko non waxuma loolu. bu ko bu ñu ko tànnoon ma ma félicité ko bu ko Macky Sall tànnoon bu koy félicité parce que maa jox ci Macky Sall sama carte blanche te gor la mais li ma mën li ma m may. mooy muy gor ñu di ay gor mu taxaw ne Macky Sall jox naa carte ba Macky Sall tànn pare mu koy défi di jaar suuf di ay njëb di jaar ci naa Macky Sall wax leer na nañ wax état yi wax ko fépp benn candidat laa am muy Amadou Ba moom laa àndal pour ñu koy feral. waaw Boun dafa jàppoon njàmmuram nekk ci mbiram. ah loolu yaa xam. xaaral rek kan moo dugal ci bopp Boun Dionne kan moo dugal Boun Dionne ci biir ci mbir mi. xawma kan la waaye kon noonam a moo dugal Boun Abdallah Dionne ci mbir mi kan la Boun Abdallah Dionne ah. lan moo tax mu taxaw défier Macky Sall est-ce que tamit du ah, dafa am lu ko Macky Sall digoon est-ce que du dafa am lu ko Macky Sall waxoon peut-être qu'il est man du ma du ma ci est-ce que non du ce que waaw ah, may ma rek may ma rek man wax ci est-ce que lu ma fekk lu ma xam laay wax la muy waxante ak Macky Sall ko ba muy bàyyi poste premier ministre lan lañ ko digoon. daa woppoon. ma ne woppul woon. non si feebar bu garaaw xam na feebar et par décence je veux pas. non waxuma mais non da ma tontu la. non bu bu bu ba muy bàyyi poste premier ministre il était bien portant. c'est pas vrai il est il est mourant. il était bien portant non non non il est gravement malade. il était bien portant il a deux maladies extrêmement graves. mais euh, kii. Euh, ah, non non Birima. s'il vous plaît waxuma waxuma dama ñëpp dañuy feebar. ak man dama feebar. ñëpp si fa yow. voilà si non ah, non mais ah, mais mais dama. pas ça. waaw dama mais mais war naa waaw ah. mun a ma fër sama gémmiñ. non mais pas ça mun a ma tarax li mu bëgg a xalaat. non non mais mais pas ci waaw mais ma ma wax ma wax yaa wax man waxuma yaa wax li nga yaa ko wax man waxuma ko yaa lu ko mag Sall ko yaa ko ko indi xawma ko yaa yëpp yaa wax man da wax li ma xam li ma xam daal mooy Macky Sall yeewu na gagné élection xool bu nu laa Dione ko premier ñëpp di ko jàppale mu bàyyi fi politiciens yëpp def ko tëdd liste ñëpp jàppale ko. lu mu ko jox ñëpp ànd ci ñi muy compte fépp dañ ca àndoon kon tey bu àddunay dox ba Macky Sall tànn keneen war na mu ngor war ci ànd loolu mooy ngor bi ngay tànn amuñu bëggoon li mu yoroon. waaw ba may wax yow da nga xam moom lan la wax ak Macky Sall. dama ni doo déggoo ma ne du ma dugg ci lu ma xamul boo laajee nag lu ma ay bu Abdoulaye Dione man li ma je parle des faits la ñu waxante Macky Sall ñoom ñaar la intéressé ça ne m'intéresse pas man Birima Ndiaye ça ne m'intéresse pas ndax li ma wax ak Macky Sall intéressé wu ko. ba ça parle la tout le mais Macky Sall lan la Boun Abdallah Dionne war a toll devant Macky Sall ba Macky Sall di ko wax lu mu yow ko xam ne nga nekk yaa ko jox nim na yëpp ginnaaw yàlla yëpp ko yaa ko defal loo koy wax même boo ko waxoon sax mu amul nga am décence yu ni daana wax di ko def tey da koo mënul ana ngor ana ngor man Sall mën nañ sax Boun Abdallah Dionne par exemple mun na ko kaay yow laa def candidat yéene la mais loolu Macky Sall moomul candidat bi da ko bokk ay gor ak i nawle mu ne mosu ñu xam ne mootu ko xëy na mu tànn kay peut-être dama dama dama xaw ma mu demee mais boobaa dafa ne ah kii kat daan ma jox démb ak bërki démb tey da koo mënul baal ma jàpp ni la bëgg loolu mooy ngor. mais non non rek loolu mooy ngor Macky Sall bu fekkee ne aussi bu la waxee dëgg rek nga mere ko mais Macky Sall dafa sonn bu la falee bu la follee nga xolu bon bu la falee nga tàcc ko bu la folu nga wax xolu bon jéem a yàq. mais c'est quoi ça pour la Boun Abdallah Dionne bañ koy wàcce il était malade gravement malade bokk naa xam ni ko dal te di ko ñaar pour mu ba ko ñaar pour mu wér dama bëgg Boun Abdallah Dionne feebar lu may jariñ bëgguma ko dama la rek mais il est malade ku feebar da ngay tal wér mais waroo tal ci réew mi di war ko defoon teranga di war il a trahi Macky Sall ba pare di génn naa di réew maa moom Boun Abdallah Dionne a trahi Macky Sall c'est ça la Birima que le veuilles ou non il a trahi Birima ba ñu paree présidentielle ba ñu réélire président de la République. Boun Abdallah Dionne nekkoon ci campagne bi Macky ci campagne bi juróom-benni ponk ponkalu APR daf leen dig poste premier ministre. Ah, may ma rek. dafa digg course bi. démarche yi de. may ma rek. Ah. Fane Ba ban campagne nga xaaral rek. campagne ba ñu paree élection 2019. bii waaw 2019 2019. waaw. Boundione ñu reconduire ko comme premier ministre. waaw ñu war a def réforme supprimer poste premier ministre. nga nga nga da ko diggoon juróom-benn kooku ma ne da ko diggoon juróom-benn nit. waaw da nga ma déglu nag boo wax parce que yaa ngi demoon suuf si waaw. ñu dem Macky Sall. tànnaat ko. fu mu dem <laughs> ne la yaay nekk premier ministre mm-hmm. nga rey sa bopp ci campagne bi dugal ci sa xaalis yëpp mm-hmm. président décidé supprimer poste premier ministre bi Boun Dionne c'était la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu gis quelqu'un qui participe à sa mise à mort te ba Macky Sall di def loolu daf ko sekk ak réforme daf ko sekk ak ñaari nit muy Maxime Jean Simon Ndiaye ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ñooñu nangu ñooñu ñoo accompagner réforme boobu ak toutes les réformes qui ont suivi te Macky Sall li wóor ba wóor mooy li am ba am mooy mook buñ jonn ba ñuy décider loolu am na lu ñu waxante woon te loolu ñu waxante woon et Madiambal a même retranscrit la dernière entrevie entre ñoom ñaar loolu moo dellu si waat xëy na loolu moo tax buñ jot am fi déclaré candidature ma ma ma nga may ma leer nga may ma leer waaw ma nga may ma leer waaw di ma may foofu doo ma ton doo ma dog vas-y juróom benn kilifa yi Macky Sall premier ministre xam nga di premier ministre doon ne kontaan nga doon nelaw. Ah. waaw mu jot joxul ko. bu dee yaa wax de man fekkee ma dama wax tey wax laay tontu fi nii ndax man vraiment Macky Sall di ngay premier ministre dama ko fekke nit ñëwul ci man it ne Macky Sall damaa ko mais bu loolu am na am nañ ko jox dégg nga kenn ko wax ñëpp dañ ko respecté mais attention président de la mën na am yéene. dafa supprimer poste ba. waaw non réew day dox réew day dox mën nga sax gis nga réew du du du biir day xëy wasin président nit la mën a toog yow gis ni kii mën na suba soobu xëy gis leneen li muy gis di ko am man du ma xam yow nga ko am pourtant ba mu ko joxoon ña ngaa seen ngor àndoon di ko liggéey bu dee li ba yàq bu dee man na xaw ma leen mi ngi àndoon loolu tax nga ni mise à mort lan la bun Abdoulaye un premier ministre lan la mën a participer à mise à mais politique président ngay doxal suñu constitution noonu lay doxee lan la ci bun Abdoulaye Dione man Macky Sall mooy xëy mi damaa bëgg premier ministre am mun def ko def assemblée nationale ay député wote ko ñu bañ ko wote wala mu def assemblée nationale donc loolu yoonu premier ministre nekku ci Bourama Diouf defal mu def bàyyi lu mu gën nit ñi ñu attends bu bi ñëwee lan la ëppalee nit ñi am confiance Macky à part confiance Macky Sall lan la Sall mu ko def premier ministre amul benn mérite mooy jamono jooju ki ñu dénk réew mi. moom la woon ci moom confiance pour mu accompagner ko pour mu dig Sénégal yi mën ko def mu jox ko bu demee ba mënatu koo jox da koy dindi il faut nit ñi commencé jàng ni état noonu lay doxee président lay wóolu jox la su ma mënula wóolu dindi mën la dindi rek mën la amee Abdou Diouf mi dindi Habib Thiam comme premier ministre kooku la jëlee réew mi Habib Thiam du may mel xaritam du may mbokkam tuddante ak moom doom mais bi état day wax da koo dindi koo dindi. mais bu ñu ban crime la def. non crime bi mu def mooy. le crime c'est d'être candidat. non non du waxuma loolu ba mu nekkee candidat la candidat dérangé ma woon crime bi mu def mooy taxaw Macky Sall ne jox naa la sama kàddu loo def d'accord naa ci Macky Sall def def keneen mu ñuy ay nitam ak di jaar suuf ak moom ñuy wax naan Macky Sall ne seen ginnaaw ça me fait très mal c'est pas vrai. vous êtes sûr. non ab je xam nga non ma ne ma ne xaaral est-ce que yow Birima Ndiaye wóor na la ne. est-ce que euh, li ngay wax wóor na la yow mën nga taxaw nga démentir avec des faits à l'appui que Macky nekkul ci ginnaaw. nekkul ci ginnaaw kan. Boun Dionne. mais bien sûr la affaire ku ne ku ne uniforme réew fukki at ak ñaar boo xamul kay nga xamante Macky Sall ñi mu tànn ñëpp lu lu dañ ko yeew dañ ko poñe Macky Sall dis dëkk ci réew mi jiite réew mi nekk ak ay nawleem ay gor waa parti socialiste. waa AFP mu yilif dem ànd ak ñoom xañ parteem jox leen ay teranga pendant douze ans nekk a ñoom tëjoog ñoom ba ñu taxaw ne kii mooy suñu candidat mais même ma gëm Macky Sall xam valeur yi ci moom nga bëgg a def looy looloo métti. alors Macky Sall n'est pas dans ses petites waaye xam nga loolu. Macky Sall nekk ci ñàkk